yéen sunu mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo chaîne YouTube bi di Baol Info TV maa ngi leen di nuyu di leen di baalu àq ci korite gi nga xam ne moom lañu génn te di leen baal àq di ñaan ñu fekk ko ay at yu baree bëri mbokk yi nag xam ngeen ne euh, démb ci altine ji ak tey ji ci talaata ji déggu leen li nga xam ne mooy revue de presse bi ñu leen doon defal revue de presse bi nga xam ne man mii di Abdou Khadre Seck maa leen ko doon defal ci chaîne YouTube bi di Baol Info TV déggu leen ko démb ci altine ji ak tey ci talaata ji waaye suba incha allah ci àllarba ji danañu ko reprendre at li nga xam ne mooy korite gi moo ko waraloon ñu amoon ñaari fan yoo xam ne rek dañ ko doon dallu ngir mën a ñëwaat ci liggéey bi ci ni mu gën a rafetee kon ñuy jéggalu sunu mbokk internautes yi di leen jéggalu bu baax a baax yéen ñi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ndax fu ne la seede yi di jóge fu ne la témoignage yi di jóge kane Bawal Info TV ak Abdou Khadre Seck ñooy joxe revue de presse bu baax bi rawatina waa jaspora bi ñu bari ci jaspora bi dañuy xaar revue de presse bi nga xam ne Euh, maa leen koy defal ci Baol Info TV kon bu ñu toogee ñaari fan dégguñu ko moo tax ma jóg expliquer leen pour ngeen xam ndax am na ñoo xam ne duñu yor sunu numéro te dañuy bëgg a xam lan moo tax revue de presse bi amul lundi ak mardi loolu moo tax beneen bi aussi gis nañ ni ngeen safoo chaîne YouTube bi di Baol Info TV rawatina revue de presse bi loolu moo tax ñu leen di baalu àq di leen di baal àq di leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen tawféex di leen wax rek na leen gën leen a abonné ci Baol Info TV di partager li nga xam ne moom lañu fiy fësal ni ay xibaar kon ñu leen di sant di leen di gërëm di leen jox dig daje suba incha allah ci àllarba ji euh, ñaar fukki fan ak juróom benn mercredi 26 avril dinañu commencé waat revu de presse bi Abdou Khadre Seck Bawol Info TV revue de presse bu baax bi jërë ngeen jëf